dalet leen ak jàmm mbokki internet yi ñu ñuy taaxaru saa su ne suñu seen bi di live Dakar 221 euh, kookee rek di Ousmane Sonko daati rek gisee ko ki nga xam ne moom la ñuy wax Matar Mané yaakaar naa ak image am ñu bëree bëri daa si nas ki ràññee ñu daal di nag gisee tey jii rek ba ñuy def rek seen bureau politique boobee ñu tafa doon amal pour réunion kookee di Ousmane Sonko daat fay pare rek gisee ki nga xamante ne si na moo di Matar Mané mu ni monsieur Matar Mané ñu ràññee ko lool daas koy xàmmee lool ginnaaw rek ay ay amoon rek fii si Sénégal ay calti calti amoon fi nag yaakaar naa ba tax rek ndaw yi bëree bëri génnoon di méttalu rek di naqaru rek fi Sénégal naroon a jëm fi Sénégal naroon a tàbbi ba tax ñu génnoon di cal seen i xeer fës kee ne rek jàmmarloog ñi fi ah, nekkoon moom kooku di Matar Mané loole nag Ousmane Sonko rafetlu ko bu baax a baax si détermination boobee ak engagement boobee nga xamante ne seen rek kooku di Matar Mané amoon na ko si am réewan nekk rek. patriote dëgg-dëgg ba tax rek mu doon def loole ba tax rek ñu amal ko rencontre euh, kooke di Ousmane Sonko di premier ministre bi jamono ji di jëwriñ ji rafetlu ko lool ba tax na rek mu daat koy posté si ab page bi Facebook am boole ko message bu am solo lool nag ginnaaw ba nga xamante ne si ne euh, combat bi ñu doon manee daat euh, am ba am si rek li nga xamante si moo di ndam ginnaaw rek seen bureau politique boobu ñu doon def mu daal di recevoir ki nga xamante moo di Matar Mané Matar Mané nag yaakaar naa ñu bëree bëri das na si koy ràññee c'est boobi le image boobi ñuy gis xamante ne si ne daate nay warlok partout dans le monde daate fes lool ndax nas ka jële ak nas ka photo benn tubaab photo ko rek jamono yi nga xamante ne si ay manifestation mi ngi doon am ah, fii si Sénégal mu doon ay manifestation yu taratar moom nag mu amoon si nag ak détermination gu mat sek kooku di